الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من أوصاف الله سبحانه وتعالى بجل جانب محمد صلى الله عليه وآله وسلم kenn ñoom kenn ku yàlla jaamu bi dëkk jaamu bi jëriñ ñàkk ba jaamu dara suñu borom subhanahu wa taala waaye di tey tey tey ne Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yéen ci yàlla yàlla subhanahu wa taala seen ñun ñu jëriñ ci lëkkal daal ñëw ci nga xam ne moom leer amaana comme niñ ko xamee mu nekk programme boo xamante ni moom lañ continuer ñu jëm ci séminaire bi muy daal nga xamante ni commencé woon nañ ko bëri dem ñu war koo yeggale ak suñu saa suñu doom day ne mooy sax loolu baax ñu teewul bu baax a baax da nga xamante ne nii moom lañ ko tuddee fas yéene fàttali bu ko defee bu ñu jógee kenn ku nekk jéem a utaat da nga xamante ne mooy bi bu tëjee ko pour gën cee jëriñu bu baax a baax kon ñu teewul wàññi jur yi suñu tànk yi ñuy xool suuf si arrêté ko jaarante yu bëri yi wàññi ko portable yi def ko financé wala ñu fay ko ndax ñu mën a teewlu bu baax a baax kon li ñu doon fay def laa tuuti ci waxtaan bi macha allah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di jullit di sëlmal ci ab yonente muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñu ngi sant sunu borom bi mu dellu siwaat defala tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ñaareelu xaaj bi ci tafsiru suratu sajda saar bi di suratu sajda comme ni ngeen ko gisee woon ci bind bi weesu borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu yegg si woon ci laayay fukkeel ak benn ñuy tàkku ndimbal bi sunu borom di tàmbale ci kulam bu màgg bi baada aoudu billahi min alshaytan arrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsih bismillahi arrahmani arrahim ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون noo ngi tàmbalee ci laaye fukkeel ak ñaar ci saar wi di suuratu sajda xam ngeen ni comme ni ma ko jujjee woon ci dars bi weesu aji gëm yàlla nàmpaleewul xolam lu gën a rëy lu ko gën a mën a defar ci téere yàlla bi di alquran ñi defar woon te jiitu woon ci asalafu saalih tàmbalee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa man duunahum ñu ngi defar woon ci téere yàlla bi loolu firnde bu rëy la bu ñu mën a am ngir gëm te xam ni defaru àddina ak bu àllaaxira suñu ko bëggee faawu ñu delluwaat ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ci di ko jàng ci di ko settantal ci di ko jëfe alquran ci boppam saa su nu ko jàngee wala nit ki déglu ko mu dëppoo xolam baa faw mu def fa jeexintal jeexintal boobu nag ban ci jeexintal la nga xam ngeen jeexintal dafa am ay façon yu bari nit ki mën na koo tax a tuub dellu ci yàlla mën na koo tax a gën a góorgóorlu mën na ko tax a xeeb li muy def ci ay yiw mën na ko tax a naw li muy def ci ay bàkkaar bu bëgg mu wàññeeku ila axiri ni mën a dollee ko dafa bari moo tax xam ngeen ni borom bi def inna hada alquran yahdi lilladi hi aqwam bind yu mel nii nag ci bind yi am solo yi la bokk ndax am téere bi borom bi daf koo wàcce duul pour que nañ ko jàng waaye nañ ko seetantal borom bi day wax ni téere bi kat yàlla daf koo wàcce waaye jubluwaay bi mooy li yadabbaru ayaati wala yatadakkara ulul albaab ngir ñu mën a seetlu seetantal seetlu ak seetantal nag ki ko mën a def mooy ki xam li mu téem lu mu tekki moo tax bokk na ci yi des ba tax alquran jëriñe gu ñu dëgg ni mu war a jëriñee mooy dañuy faral di jàng waaye du ñu xam li ñuy jàng lu muy tekki boo xoolee salafu saalix ñoom li tax alquran doon def ak lu aaya ji gàtt gàtt ci seen xol ay jeexintal parce que ñoom dañoo xamoon liñ doon jàng lan la moo tax dafa ruslu aji gëm yàlla bi deful effort pour jéem a jëm ci téere yàlla bi ngir xam lu muy tekki moo tax lii ngeen ci def jéego bu rëy la ci waaye xeebu na ci lool nag imam ju mag ju ñuy wax amr ibni murra day wax ni ida marrat bi ayatun min kitaabillahi lam aqilha bakaytu ala nafsi summa tala qawlahu taala wa tilka al amthalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha illa al alimun amr ibni murra nee na man su ma amee aaya bu ma jàng ci téere yàlla bi wala aaya boo xam ne dañ koo jàng ma dégg ko te xamuma lu may tekki xamuma lu muy tekki mu ne su boobaa damay sëgg fi ma sëgg ma jooy sama bopp bi ñu ko laajee lan moo tax ngay jooy sa bopp mu ne yàlla dani ci surtul ankabut misaal yaa ngi nii ci alquran waaye ñi ciy jariñu ñi koy ñi nga xam ne ñoo ñoo ciy jariñu mooy ñi xam li muy tekki ba mën caa xellu kon su ma comprendre lu aaya ci ça veut dire que mooy kon ab dof laa kon awma xel xoolal ñoom déggin wu xóot woowu ñu doon dégg ci nit ki su fekkee dafa déglu ab aaya wala mu dégg ab aaya wala mu jàng ko ci xamul lu muy tekki alquran moom lu mën a def ay jeexintal la ci xolu ku gëm yàlla rawatina nag bu mu soodafaa xol boo xam ne yàlla def na ca ak mbaax kon borom bi subhanahu wa taala ci laaya ji sunu borom mu ni walaw tara su fekkonte ni gis na gis nga idil mujrimuuna jamono ji nga xam ni saay saay si wala ñi nga xam ni ñoom dañoo lànkoona jaar ci yoon wi sunu borom bëgg ko fa jaar sunu borom mu ni boo leen gisoon jamono ba nga xam ni naakisu ruusihim ñu nga sëgg seen loot yi ndax gàcca ndax dund nañ aw fan wu gudd waaye ñëw ba àllaaxira rek fekk ndeke lan doon toog ak li am bokkut wa badaa lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibun nit ki daa foogoon ni àllaaxira li ñuy wax ay nax la fekk mbir mi du ay nax mu foogoon ni ci ñoñ baax la bokk mu dem ba yegg fekk bokkut mu foogoon dana texe mu dem ba yegg fekk texewut mu foogoo ne li muy def noonu la fekk du noonu wa hum yaxsabuuna annahum yahtaduun aw annahum yuxsinuuna sunaa suñu borom ni ñi nga xam ne ñoom dañoo texee di cay boo leen gisoon jamono ba nga xam ne naakisu ruusihim ñu nga sëgg seen loot yi inda rabbihim fa fay njëm suñu borom ba muy àllaaxira ña ngay jot ki ay baat di wax na rabbanaa yow suñu borom absarna fi mu ne xippi nañ suñuy bët ba gis mu wénnu lu lii mooy dëgg wa sami'na ñu ubbi suñuy nopp dégg ba mu wérnu ni lii mooy dëgg farji'na dañoo bëgg nga delloowaat ni ci àddina na'mal saalihan bu ko defee ñu profitoowaat jëf ay jëf yu baax inna muuqinuuna wér nañu ni li nga nu woo mooy dëgg loolu nag mooy nadam gu mag gi réccu gu mag gi nit ki dem ba àllaaxira amut lenn lu ne tam xelam lu dut na ko borom bi dellu ci waat ci àddina pour mu waajaat te xam ngeen loolu mënul nekk ndax nit ki su fekkee dafa toll ci sukkuraat sax banaan rabbi irji'uun dañ naan ko kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha beneen bi ci des mooy walaw ruddu la aadu lima nuhu anhu suñu borom mu ni suratul an'am buñ leen dellutuwaatee ci kaw suuf dañuy delluwaat ca caay-caay ga ñu nekkoon kon suñu borom xam na leen léegi yow jaamab yàlla bi nga xam ni dee yegteegul ci yow àllaaxira yegteegul ci yow ñu jox la image boo xam ni waa ji ngay gis ci image bi moom kat dafa dem ba àllaaxira mu yëg ni lim fa yóbbu ci yóbbalu yiw doyut te lim fa yóbbu ci ay bàkkaar dafa ëpp muy rëccu rëccu ku ko delloo si sunu borom ni déedéet loolu mu mënta nekk moom àllaaxira boo fa xasee ba dem kay jeexal na loolu nag kan lay jariñ mooy ñun ñi nga xam ne yàlla defal nañu taw fiix demagul kenn ku ci nekk mu fexe ba ëmb bi muy yóbbu àllaaxira muy ëmb ab jëf ëllëg da ngay ñaan yàlla di gën a jegeek moom waaye bul ñaan yàlla di gën a fareek moom comme ni ko laajee waxee yow ma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muxdara wa ma amilat min suin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida nit ki li mu defoon ci aw yiw julli yi naafila yi jàng alquran yi saraxa yi wax lu baax yéene sa mbokk jullit yiw yooyu yëpp dañ koy ëmb ab ëmb boo xam ne dafay nëtëx naat neex a xool neex a moom it nag teg ci waaye li nga defoon ci ay safaan day da nga doon ngéejo yàlla jël safaan yi teg ko ca penku ba yow mu sànni la ca sow ba ngir ngeen soyee yéen ñaar te loolu mënul nekk sunu borom ni walaw si'naa bu nu sooboon nun yàlla la aatayna dañuy jox kulla nafsin bakkan bu ne hudaha ak juba loolu mooy bu neexoon yàlla la amana man fil ardi kulluhum jamia gis nga bu neexoon sunu borom yéefar du fi am ci kaw suuf ñëpp fay nekk ñu gëm yàlla waaye nag neexu ko te lépp lu ko neexut du am borom bi mu ni walaw si'naa bu ñu sooboon la aatayna dañuy jox kulla nafsin wala la aatayna dañuy jox kulla nafsin bakkan bu ne hudaha ak njubam mooy mu gindeeku yéefar du am safara du am bay lakke mooy yàlla du am waaye neexewul noonu suñu borom ni mu ko neexee mooy walakin li am mooy xaqal xaqawlu min nii maanaam xaq dafa dëggu alqawlu kàddu yi suñu borom yi min nii fa moom kàddoom yi dafa dëggu te kàddu yi mooy la am la anna jahannam dinaa feesal safara jahannam minal jinnati ci ay jinne wan naasi ak nit ñi ajmaay na ñoom ñëpp sawara moom wir na ci sunna ni dana fees aljana nag benn tegtal bu yonent dem fees amut wér na nag danañ fa dugg dugg dugg ba mu def ay place yàlla sàkk ay mbindeef yoo xam ne ñoom dañ leen di sàkk rek tëmbal leen biir ajana yàlla yàlla boole ñu ci waa aljana sawara ci boppam borom bi daf ko waajal mu nekk dëkku mbugal ñeer ñi doon mooy dëkk bu tar la dëkk bu metti la lay dundoo moom sawara fii ci kaw suuf ku ko laal ci saw yaram di nga xam ne mënoo dégg wii suñu borom ni afara aytumu naara allati tuuruun ndax wi ngeen di jaaroo di ko taal xanaa defu leen ci taxaw seetlu a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunsi'un mooy nahnu ja'alnaha tazkira sawara si dama kaa def boo nekk koset mu nekk tazkira mooy dalay waar fàttali la sawara fële jinne ak nit ñoom la yàlla saxal ni ñoom lay feesal ci sawara bi est-ce que jinne ak nit ñoom la yàlla sawara saxal aljanna ji borom xam-xam bi wute nañ ci dëppoo nañ ci li alxuraan saxal mooy jinne moom bu jaamoo yàlla tàbbi sawar waaye bu jaamoo yàlla ndax day dugg aljana wala déet am na ci borom xam-xam ñu ne déedéet du dugg aljana suñu borom da koy def mu seeri rek am na ñu ne honkay yeeyana dugg aljana te loolu mooy li gën a dëgër yeeyana dugg aljana te xam ngeen aljana kenn du fa dugg comme melokaan yi yore ci kaw suuf waaye mbokk yi aaya tëpp yu mel nii saa suñ ko déggee ñun ak jàjju la tazkira la kalla innaha tazkira tazkira lay doon ñeel la jaar mooy nit ki mu tiim téere bi defar ay settantal ci aay yu mel nii nga xam ne waxuñoo ma sàmm waxuñoo ma demb yow la nuy waxal moo tax gis ne wallahi mbokk yi salafu saalih kem talaay nit ñu gënee woon ay xol kem talaay noonu lañ ñu gënee def taasur ci quraan gis nga am na ci ñoom ñoo xam ne aaya yii di wax ci wàllu mbugal ñoom mënuñu ko woon sax a jàng mënuñu ko sax a jàng barke yi seen dund yeggoon na ci imam daana sóoraale ay nit ci ginnaaw ngir bañ a jàng aaya yu mbugal mbokk yi loolu loolu ngëm yàlla bu kawe la imam dana jiite xool tàppe ci gis ci diw diw moome moo koy teree jàng aaya mbugal ndax xam na ni bu koy jàng mën na fay xam baamu dee imam fudayl ibn al ayab imam la jubu mag ci a'immatu ahli sunna wal jamaa nga xam ni ñàkk koo xam sax moom erreur bu mag la nag ndax koo xam ni amiru dunia muy haruna rashid dem na ba ni bis bu yëkkatee xol bu feebar bu ko kenn yóbbu ci kenn mu waar ko kudul fudayl ibn al ayab ndax waaraatem rek a mën a def jeexintal ci xol dafa amoon doom bu ñuy wax ali ibn al fudayl ali doomu fudayl ibn al ayad gis nga kooku yàlla daf ko defoon kéemtaanu yàlla goo xam ni kéemtaanu suñu borom ci def taassul ci alquran ba yaayu ali ibn al fudayl danañ wax fudayl ibn al ayad boo dee jiite su dee gis nga ci sàppe ci ali ibn al fudayl bul jàng aaya buy wax ci mbugalum safara allahu akbar yaayu ali moo doon wax loolu papa ya ali muy fudayl ibn ayad benn ci bis yi fudayl ibn ayad di jiite ci bis gestu xool tàppe si gisul fudayl gisul ali mu jàpp ni kon ñëwut kon am na liberté jàng aay bu mu bëgg a jàng nekk doom ji dafa taaram mu tàmbalee jàng ab aaya su fekkee fàttewuma juuma ci qissa bi mi ngi doon jàng aaya ji nekk ci suratul an'am wala wa an'am walaw tara id wuqifu ala annaari fa qaalu ya laytana nuraddu wala nukaddiba bi ayati rabbina bi mu jàngee fatiha mu jeex mu jàpp ni comme doom ji newu fi kon am na liberté jàng aaya ji ko neex mu jël aaya joojee di wax ci mbugal mu tàmbali di ko jàng balaa moo jeexal rek doom ji daanu xam ndeke foofu la dee ci biir jàkka kon yaay ji ku ku ñor la lii moo taxoon lii la doon évité moo tax mu ne ko bul jàng aaya mbugal bu fekkee seen nga ko ci biir jàkka ji am na ci ñoom ñoo xam ni su fekkoon te dañuy dégg aaya buy wax ci mbugalum safara wallahi bu doon bis la bu doon ab journée la dañuy wax ni bu doon fajar lañ ko jàng seen journée yëpp day yàqu dootu mën a defati dara parce que ngir tiitaange ju rëy wa kadalika noonu tamit la jullit war a mel ci xemem su déggee aaya ji wax ci aljanna ndax fi mu ne aaya ji wax waxut ak kenn yow lay waxal xitaab bi ci yow la jëm si loolu moo tax ab jullit nag buy jàng alquran te assur bi muy def bokk na ci ni mu koy yóbbee mooy mu yëg ni aaya ji man lay waxal man mi koy jàng parce que man maa ko moom ci man la wàcc moo tax sunu borom mu ni dëggu na moom digab sunu borom bi ni la am la anna jahannam min al jinnati wan naasi ajmain yàlla na suñu borom boole ñu bëgg musal ci mbugalu safara loolu de bokkoon na ci sunna yonent bi di ko ñaan bis bu nekk yonent yàlla bi nee képp ku xëy mu muslu ci safara ñetti yoon safara day wax suñu borom ni ko kii kat moom dafa mel ni tiit na ci sa safara bi kon teg ko ci tind musal ko ci ku xëy nga ñaan aljanna ñetti yoon suñu borom day wax àjjana danaan ko ah moom kat kii dafa mel ni kat bëgg naa mucc ci àjjana ji teng koo may suñu borom ni fa duuqu kon mos leen bi ma nasiitum ci fàtte gi ngeen fàtte woon liqaa yawmikum haada daje gi ngeen war a dajeeg seen borom dañoo waroon dajeeg seen borom ngeen fàtte ko suñu borom ni comme da ngeen koo fàtte woon nañ leen fayee jazaan wifaaq da ngeen koo fàtte woon léegi wifaaq mooy wif xamaa kunta tafaal lu dëppoog li nga doon def rek suñu borom mu ni fa duuqu mos leen ci mbugalum safara bi maa ci sababu nasiitum fàtte gi ngeen fàtte woon li liqaa yawmikum haada daje gii ngeen nar a dajeeg seen borom lii moo tax Abdullah ibn Umar dana wax naan moom day gëm ni yàlla du nangul lu dul ku ragal yàlla ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin mu ni su ma wóoroon ni sama genn julli kese yàlla nangul na ma ko ñeme na maa dee dajeeg sama borom genn julli genn ni su ko wéroon ni genn julli rek yàlla nangu na ko ñeme naa dee dajeeg borom nga xam ne ni kon dana baax de parce que innama yataqabbalu llahu min almuttaqin suñu borom mu ni mos leen ci sababu fàtte gi ngeen fàtte woon dajeeg seen borom haada liqaa yawmikum haada la jëm tey inna nun yàlla nasinaakum dañ leen a fàtte de parce que yàlla bu fàtte nasinaakum mooy dañuy jëflanteeg yéen jëflanteeg ku fàtte parce que annisya la yudaafu ila rabbi subhanahu yéen da ngeen a fàtte woon nasullaha fa nasiyahum ay nasullaha fa aamalahum allahu muaamalata annaasi dañoo fàtte yàlla yàlla di jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku fàtte waaye di nga teg ci buntu bi rek fàtte ko fa moom nga xam doo wax ay waxam sunu borom noonu la koy def donte fàttewu leen waaye comme kenn ku jëf sunu borom lu tolloog la nga jëf la lay fay kon yàlla day jëflante ñoom jëflante ku fàtte donte fàttewul sunu borom mu ne wa duuqu mos leen adaabal xul di mbugalum sax ma xoolal waxul mbugalu métti mbugalum sax ma li gën a métti ci safara sa mooy sax sax ga mbokk yi safara li ci gën a métti mooy sax ga àjjana la fa gën a neex mooy sax ga ndaxam bànneex lu mu neex neex neex bu amee foofu jeexee rek foofu waaye naqar lu mu metti metti bu amee lu mu jeexee ñu mën koo fàtte waaye xuld nag lu lu metti la ndax mbugal moo xam ne yaram dégg mënu koy dégg àllam neen doomu aadama ji sax fa dàq loolu laa sakk ku xam alquran ni muy tëggee ay mbugal yi dafay xam ne ñun suñu yaram yi suñu melokaan yi mënu dégg mbugal sunu borom mu ni subhanahu wa taala wa duuqu mos leen adaabal xuldi mbugalum sax mi bi ma kuntum taamaluuna ci sababu li ngeen doon jëf ci kaw suuf kon dama leen a fay tey mbugal sunu borom wàcc loolu jàll te ña nga xam ne ñooy ñi gëm ña muy ñu baax ñi ñi am defaru xol ji sunu borom ni innama yuminu innama te dëgg-dëgg daal yuminu day gëm bi aayatina ci suñu aaya yi wala ñi ko gëm dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ni boo nattee seen ngëm fekk yegg na ca njomboxtal ga ñi nga xam ni ñoom kat bokk nañ min ahli imaani wa xaasati rahman ñi nga xam ni ñoom kat yàlla daf leen di bàkkoo di leen ndamoo doonte ñu doyee di lañ ci nit ñi ñi nga xam ni ñoom saa bu ñu déggee aaya buy wax ci yàlla nee na allahu akbar am na mel ni mbokk mu ni ma soxnaam da ko doon wax ni ko àddina ba àddina daj ñaari baat moo ko mën a tiital mooy bu yàlla nee ak bu borom këram nee mbokk mi mu ni ma lii mu ma doon wax dëgg la ndaw si faatu na yàlla yàlla yéen mu ni saa bu déggee yàlla nee na ci alquran dafay mel ni ku tàqali ko sagoom te lii nag mooy xam-xam ku jàngut te fekk ku xam-xam ku jàng la ndax yaa ayuha alladina amanu comme ni Abdullah ibn Abbas yi waxee saa bu ko gëm yàlla déggee rek wala luy wax ci ñi gëm ji dafa war a taxaw mu diglu ba xam ab ndigle la mu gaaw def wala ab tere la mu gaaw bàyyi kon nit ci saa bu déggee kàddu yàlla bu jëm ci ñu gëm kooku daf ko waroon tàqaleeg sagoom ngir mu xaar ndax ay digle la mu def wala ay tere la mu bàyyi sunu borom mu ni innama yuminu dana gëm bi ayatina sunu aaya yi alladina gaa ñi nga xam ni ida dukkeewu biha buñ leen fàttalee alquran xarru dañuy rot sujjadan sujud wala toroxlul yàlla wa sabbaxu ñu sabbal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom wa hum ñoom day laa yastakbirun duñu rëy rëy imam mujahid mu ne mooy ñoo xam ni buñ leen jàngalee alquran wala buñ leen fàttalee yàlla subhanahu wa taala istamacu laha wa ataacuha qawlan wa ficalan dañuy déglu li li li li aji wax ji di wax lan la bu fekkee lu laaj wax la ñu jub wax bu fekkee lu laaj jëf la ñu jub jëfe ku jàng siira saxaaba yi xam ni ñoom nii lañ doon dundee alquran moo tax kenn du mel ni ñoom ila axiri def suñu borom ni ñi gëm yàlla dëgg-dëgg tigi bokk na ci seeni melokaan mooy ida dukira allahu wajilat qulubuhum buñ leen tuddalee yàlla day yëg seen xol yi di rëf-rëf yi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana buñ leen jàngalee alquran daf leen di dolli ngëm aaya ji ak yi ni mel bokk na ci imam albuxaari di sukkandiku ci saxam di wane ne al iman yazidu wa yanqus yazidu bi taa wa yanqusu bil maasiya wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun buñ leen jàngalee aaya yàlla yi dafa mel ni chargeur bu doon charge seen batterie xol yi ngëm yi gën a yéeg sunu borom ni téere bii de téere la boo xam ni taqsha'arru minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dikrillah li ma bëgg a wax foofu mooy alquran ci boppam bu fekkoon ni ñi ngi ko jàppee ni nga ko war a jàppee dama ni defaru xol moo ci gaaw te lim man def ci xol leneen mënu ko loolu nag ñi nga xam ne ay jàngkati alquran tigi nañ xam nañ loolu borom bi subhanahu wa taala mu ni wahum la yastakbirun ñoom du ñu rëy rëylu du ñu fekk ab santaane ñu joggi ko jàll waaye lu ñu fekk ab tere ñu fel ko jàll déedéet bokk na ci seeni melokaan sunu borom mu ni jaam yooyee nga xam ne yàlla daf leen di bàkkoo di leen ndamoo te tajaafa dafay gedd day sori junubuhum seen wet yi anil madaaji ci tëdduwaay yi yad'uuna ñu ngay ñaan rabbahum seen borom xawfan tiit lool ci mbugalum ëllëg tàbbi ci seen kaw wa tamaan xemem lool ndax bu ñu amul àjjana du baax te wallahi mbokk yi loolu mooy di wér àjjana buñ ko amul du baax wa mimma razaqnaahum leen yàlla wërsëgal ak lu mu tuuti tuuti tuuti yunfiquuna dañ koy def suñu borom mooy bokk na ci melokaani jaami yàlla yi mooy ñoo xam ni bu nit ñi tëddee di guddi di nelaw ñoom seen wet yi day gedd seen lal yi bi maana kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun ñoom tuuti la ñuy nelaw ci guddi te xam ngeen ni julli guddi kunna nadkuru wala nakaadu nukarrir képp ku ko tële ak koo mën a doon geneen jaamu yàlla gooni man nga ko wax la lu ëmb da nga koy tële parce que mooy formation bi yàlla njëkk jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jullikati guddi yi ñi ngi dund ci ay nanguy ñaan di dund ci ay jàppandali mbiri àddina waxuma la àllaaxira ne mbiri àddina sa mbiri bopp yow sa yëfi bopp rek say jaf tafal ji yombal gi la ci yàllay defal nangu ñaan gi la yàlla di defal yéwenuk mbir jàppandaluk mbir daluk xel féexu xol wéruk feebar yii yëpp yàlla def na ko mbir yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na sarax day bu fekkee ne ki da koo nëbb dafay fay bàkkay fay meram suñu borom waaye wér na ci xadis yént yàlla mu ni même julli guddi tatrudu daa fil jasad dafay dàq feebar ci yaram waxuma sax nag ay lay xaar ci àjjana bi suñu borom bi muy tagg jaam ne ni kaanu qalila min al-layli ma yahjaun lu tuuti lañ daan nelaw ci guddi wa min asxaari hum yastaghfiruun fajar ñi ngi toog di jéggalu yàlla mbokk yi ku fanaanee julli bu fajaree loo jéggaloo bi yow kay li nga def kay jabax waaye xoolal ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ni malgré que li ñuy def lu mu baax baax baax ña ngay jëfe aaya ja mooy dañuy tiit ndax yàlla nangul na leen wala nangul leen inna alladina hum min xashyati rabbihim musfiquun waaye ba muy jeex mu ni walladina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un dañuy joxe ba noppi daal di wëlbatiku tiit ndax dinañ dem ci yàlla te wéruñ ba xam yàlla nangul lañu wala déet ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin gis nga bu ñu delloo gannaaw ñun ñii tibbal juróom-ñaari at ci ginnaaw ñi doon góorgóorlu ci sunna ci suñu jaww suñu dund bii ak ñun ñi nuroowuñu déedéet bokk na ci yi ñu wuutale jëfeeg julli gi gis nga iblis alayhi min allahi laana bokk na ci xeex yu mag yi muy gën a def dana fexe ba guddi gi moom bul ci julli dara yéen yàlla daa xool abdullah ibne amr mu yàgg mu ne ko laa takul misla fulaan bul mel ni diw ndax diw kat danaan julli guddi mu xëy xëy bàyyi yéen yàlla bi xool abdullah ibne omar abdullah ibne omar dafa tëdd ba guddi mu génn ñaari malaaka ñëw jàppoo ko di ko tàbbali safara muy yuux di yuux di yuux ngir dañ ko musal muy yuuxu yuuxu yu métti jékki-jékki ba mu yàgg rek am lu ni ko cat daal di koy bàyyi bu mucc gént gi tiital ko waaye mu rus koo nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gént gi dafa ragal mu nettali ko Xafsa te fekk Xafsa magam la di soxna yonente sa sallam Xafsa ñëw nettali ko yonente bi ba mu ko nettalee ba yeggal yonente bi daa muuñ rek ni niama rajulu abdullahi law kaana yaqumu min al-layl allahu akbar tontu déedéet dañu cay abdullahi day waaju baax la tey bu ci boole woon julli guddi doomu abdullahi ibne omar nee na ba sama bàyyi faatu mësul bàyyi julli guddi ba mu déggee loolu ci laa ma ñu sax léegi ñun lan lañ ciy déggee xoolal gént gi ni mu ragloo ak kuñ doon xëcc di ko tàmbal safara mu mucc yéen bi firil ko gént gi ba doon julli guddi man de sama dégg-dégg bopp lam ma wan mooy kon ndeke julli guddi dafay musal nit ci mbugalum sax gis nga jullikatu guddi wallahi lépp ay mbir yàlla da koy defal ay jàppandal ba ci sam njàng sax maanaam tey sirul umur sa mbir yëpp day yeween day jàppandi borom xam-xam dañuy wax ne bokk na ci fawaid yi julli guddi am mooy addina sax sa sa addina da ciy defaru am na waxtaan bu ñu defoon ca jamono yële passé tarbiyatu nafs ala qiyamul lay ala qiyamil layl yaakaar naa ku ko déglu leeral nañ ci salafu saalix ñoom nan lañ daan jullee guddi waxtu dana tax duñ ca mën a baamtu leen waaye li ma na ma wax fii mooy bu fekkee da ngaa jàpp ne julli guddi fi mu nekk ñooñe rek ñoo ko man xamal ni ba tey am na ñu koy def ba tey am na ñoo xam ni ubbaadu laylin ida janna zalaamu bihim kama aabidin dam'uhu fi lxaddi ajra mën ngaa dateeg nit ngeen bokk ay yëngu-yëngu ci guddi gi ci bëccëg bi nga foog ni yow la mel day fanaanee xoole ba da fanaanee nelaw ba fajar fekk déedéet wallahi day julli guddi te léeg-léeg nga dégg ci nag ay xisas yu kéemtaane ci ñi ñuy dund yii boo gisee ma di ko wax mooy ngir ñu xam ni léegi dafa pexe seytaane ma ah lii de xëy na ñun mënatuñ ko léegi ahan kay mbokk yi bu fekkee ñun activité yi àddina coono yee tax ñu ne mënuñoo julli guddi ñun am nañu ay warwaay salafu saale amuñu ko woon jéego yi ngay dox bu doxee soxla yow sa coup téléphone ngay jël rek mu doxal la yaa ngi sa ventilo yu sedd yaa ngi sa ndox mu sedd sa dëkkuwaay yi moo gën a ligsi moyen yi war a mën a tax nit jaamu yàlla yëpp yàlla daf la koo jàppandalal ba léegi mënoo koo jaamu yow ndax bu fekkoon te ni kon ñàkk mooy yeggee ci nga doon dund di nga def dara déedéet bu dee ci wàllu jigéen ñi am na mbokk mu ma nit ni soxnaam bu mu tàqalikoon bi ñu fiy waxtaan mu ni ma oustaz bokk na li ma gën a yéem ci ndaw si mooy nekk nañ ba teqalikoo trois heures du matin saa bu ko fekkee ci kaw lal daa gis baax lii moom ki ma ko wax moom mbir na ma ndax xam naa soxnaam la wax mu ni trois heures du matin saa bu ko fekkee ci kaw lal mooy daa fekk ndaw si mënul julli wala xanaa mu feebar xëy na rek yàlla def na la muy def bañ teqali ko waaye daal kiimtaanu suñu borom a ngoog am na menn mbokk moo xam ne ki mu jël soxna li tax mu jël ko mooy maamam maamu ndaw si moo ñëwoon di ko kalaame waaye yaayu ndaw si di ko kalaame ustaas bi koy jàngal mu ni ko moom day man damay tiit sax mu dee ci guddi gi moom foo wëlbati ko génn na mi ngi lal si jaadu julli ci digg ëtt daal di koy wax ay wax xam nga meer diñ gaawee tiit rek ah oustaz moom it dem di laay biir ndaw si bi mu ko laayee biiree ba ndox mu laaj ko ndax da ngay julli guddi bi mu ko laajee da ngay julli guddi ndaw si ne tekk ba mu yàgg mu ne ko man day dafa bokk ci li ngeen ñu doon jàngal mooy suñuy jaamu yàlla nu koy nëbb naka nga ñuy nëbbloo suñuy jaamu yàlla ba pare di ma wax loo samay jaamu yàlla la mbokk mi loolu mooy sabab mu dem jël ko soxna ndeke ndaw si guddi gu jot su nit ñi tëddaan tuuti rek xëcc na taxaw ci biir ma ngay naan am na mbokk mu ma xam man sama bët lii sama bët a ko tege wallahi léeg-léeg da ngay rus da ngay rus ndax da ngay xam ne am nay jàmbaar dëgg mbokk mi dañoo ñëw ci waxtu guddi mbooloo ak barab ay nit nekk fa lii nag comme jaamu yàlla bu nëbbu la te it mënees naa bañ a xam kan la ma wax ko aayu ngir ñu mën cee jariñoo man ci sama jëm bopp maa ne salaamaaleykum ci biir néeg bi sama bët sànnee ko mu wér ma ni diw nii da doon julli ci saasa mu ni gufuñ tëdd wallahi keroog guddi googu li ma am ci ruus ak kersa ak jéppi sama bopp ak mere sama bopp yàlla rek ko am man wér na may da doon julli ma ne ko diw muy xaran-xaran mbokk nit ñëpp ci tëdd muy xaran-xaran parce que jàpp na ne man gisuma ko fekk rideau bi la naaw ma seen ci biir mbooloo mi nit ñaa ngi tëdd moom ma ngay julli may dugg si mu tëdd diw diw mu ni fat ma génnaat dem xam li ma xam ak sama gàcce ndax wér na ma ni kii da doon julli am na beneen mbokk moo xam ni xam naa ko kooku moom yàlla def na man mësagumaa gis bi ummi ay la yee ku mel ni moom mësaguma ko gis bi ma ko xamee ba tey mi ngi bëgg a mat juróom-ñaari at wala juróom-benni at ba tey jii ba fii ñuy wax ak yow ab julli nga guddi na ci nga xam ni gis nga boo jàmbaarewut yow rek yaa jàmbaarewut booy fo yaay fo rek nit ñi war nañ seeni gaal ba joow dem moo tax suñu borom bu ni gaa yooyu day te ta jaafaa day sori junubuhum seeni wet anil madaji a ci tëdduwaaya yad'una rabbahum ñu ngay ñaan seen borom xawfan di tiit la fa ne ca moom ci mbugal wa tamaan di xemem la ne fa moom ci ajana ja wa mimma razaqnaahum leen seen borom war sëgal yunfiquuna ña ngi cay dépense jaamukatu yàlla yooyu ma tudd léegi nga xam dañuy jaamu yàlla di ko nëbb imam xasanul basri bi muy tafsir aaya ji dani moo taxit yàlla tamit nëbbal leen lam leen dencal mu ni fala taalamu xamul nafsun bakkan ak bu mu mën a doon maa uxfiya lahum liñ leen dencal min qurrati ayunin ci loo xam ne lu sedd xol la ak bët jazaan mu nekk ak fay bi ma kaanu yaamaluuna ci liñ doon def allahu akbar xasanul basri mu ni ñoom kat dañ doon jaamu yàlla di ko nëbb yàlla tamit àmbaleel leen lam leen dencal nëbbal leen ko ngir mu nuroog lan doon def xasan basri benn ci ndongo mi dañu ko lan moo tax jullikati guddi yi foo leen seetlu seen xar kanam yi day leer leer goo xam da lay wóor ni gii du diw du meleen mu ni parce que dañoo wéet ak yàlla ci lëndami guddi gi suñu borom roof leen ci leer ak boppam gi gis nga ayibatu salaf da nga ci gis koo xam ni bu bëccëgee da nga koy fekk ci marché bi da ngay jàpp ni moom liggéey rek la man waaye bu guddee bu nekkee ca mixraabam ci jaamukat yàlla yàlla jaamukaay yàlla bi da nga yaakaar ni kii moom dernier jouram mooy suba pour mu faat ci nañ da def atadarrua ila allah di toroxlul yàlla di jooyal yàlla di ñaan yàlla di ñaan ajana di muslu ci sawara ah bal ñoom ñaan seen yéwénuk addina sax ñaan seen yéwénuk àllaaxira moo leen ko gënal moo tax sunu borom mu ni kenn xamut lan la leen yàlla dencal ñoom jullikati guddi yi nga xam ni kat borom bi subhanahu wa taala defal na leen loo xam ne yent yàlla bi nee na am na fa maa laa aynun ra'at lu bët mësul gis wala udunun sami'at lu nopp mësul dégg wala xatara ala qalbi bashar loo xam ni mësul xalaat mës koo xalaat abu hurayra musaana jàng aaya ji ba noppi musaana wax xadis ba noppi aaya ji la ci teg mooy fala taalamu nafsun ma uxfiya min qurrati a'yun kon loolu aayab ñaaxee ngoo ci julli guddi waaye li may wax sama bopp laay wax ñëpp rek xam ngeen naafile bëccëg yi ku ko mënta sax mu julli guddi taxut di wax mu jeex foofu la àtte bu gaaw bi sunanu rawaati bi yii ku ko mënta sàmm ci bëccëg yi coow leeg activité yeeg tàngooru yaram bu guddee bu yaram tëddee doo ko mën lekk lu lew day tax nit ki di mën a julli guddi sieste tëdd bëccëg day tax nit ki mën a julli guddi xasanul basri day romb gaa yi marta bi ñu cëppax cëppaxi ci bëccëg bi mu ne cëj ñii de fanaanuma ak ñoom waaye xam naa ne guddi gu bon gu kenn dul xiyaam la ñuy am ñu ne ko lu tax mu ne ku dul tëdd bëccëg doo julli guddi bokk na ci yi mën a tax nit ki di mën a jug guddi mooy di fàttaliku aayaat yu mel nii ak di jàng siirat salaf salaf salih julli guddi am na benn borom xam-xam Abdul Malik al Qasim am na benn téere moo tax tuddee ko ulaika al axyaar boo ci delloo muy nit li salafu saalih ak nu ñu meloon ci julli guddi wallahi bu ñu tànnoon ñun ci gën a baax ci ñun teg ko ci mboolam saxaaba yi kersaab du ko may musique ndax ñoom nan meloon te moo ne mbokk yi bu ñu fàtte ne ñoom ñun ñoom la du royloo bala sax nag dañ ñu wax ni sunu baax mi ngi aju ci ñu mel ni ñoom wala ñu roy leen bokk na ci yi nga xam ne day dimbali nit ci ba mën a julli guddi mooy teel a tëdd mbokk yi maa xam ngeen ni ñun xaaji guddi la ñuy tëdd guddi ci lislaam mi ngi tàmbalee timis suñ nee sept heures deux ci la timis jot tey buñ doon wàññi sulusu laylul axir nga xam ne ci la yàllay wàcc da ngay jël sept heures deux ñëw six heures moins neuf nga xam ne ci misaal ñu ne ca la jant bay fenk gis nga boo ko divisé par trois diggante ba boo ko divisé par trois lam la jox mooy ceer ba mujj ma léegi xoolal koo xam ne sept heures deux ci la timis jot ñu ne guddi commencé na huit heures neuf heures dix heures onze heures ki gën a teel a tëdd mooy ki tëdd min bi maanaam ki gën a teel a tëdd mooy koo xam ne lekk na juróomi waxtu ci guddeem te sunna dafay tere reer ba noppi wala di liggéey ba noppi di waxtaan lu dul ci xam-xam lu dul ci réunion lu mënta ñàkk sunu day tere lu mel noonu kon moyen yi tax ñu mën a julli guddi yépp defuñ ci benn moo taxit duñ ko def sunu borom subhanahu wa taala mu ni afaman kaana ndax ki nga xam dafa nekk mu'minan di ab ku gëm yàlla topp yàlla déggal ko nangul ko kaman kaana fasiqa da ngeen a jàpp ne yàlla daf koy jàppe comme ki nekk saay saay laa yastawun du ma leen yemale mukk kon ñàkk maandu feeñ laa yastawi zulumat wala nuur wala zill wala alxaruur wala alaxyaau wala alamwaat wala almumin wala alfasiq kerak naaj duñ ma sa yem lëndam leer duñ ma sa yem guddeeg bëccëg duñ ma sa yem kon ki saay saay ak ki baax duñ ma sa yem ah ki jàpp ni kon am na ñoo xam ne ñoom jarul ñuy jaamu yàlla nañ nekk ca leen neex dem ba àllaaxira yàlla booy leen ci groupe bu ñu baax ña déedéet yàlla def loolu parce que loolu ñàkk maandu la te loolu kenn du ko askanale yàlla yent yàlla bi nee na man batia bihi amaluhu lam yulxaq bihi nasabu ku sàggan ba say jaamu yàlla tax laa tardé saw askan lum poor poor du la mën a tax a dabe kon ku jàpp ni am na ñoo xam ne dañu ne ba àllaaxira ak lañ nekkoon lépp yàlla yëkkati leen boole leen ci waa ajana ndax defuñu dara ci ay déedéet demewut noonu yàlla boole saay saay jeeg aj ñu baax ñëpp tàbbal ajana ñàkk maandu la boole ñu baax ñeeg saay saay doole tàbbal safara kon tooñ la ñu baax ñi suñu borom ni laa yastawun duñu yàlla ama alladina amanu ñi nga xam ne ñoom gëm nañ suñu borom nangul ko wa amilu salihaati tey jëf-jëf yu baax falahum ñeel na leen jann jannatul ma'wa ajjanay saxuwaay ajjana joo xam ni féexlukaay la nuzulan mu nekk ab wàccuwaay nag bi ma kaanoo yaamaluuna ca lañ doon jëf sunu borom ni gaa ñi nga xam ne gëm nañ yàlla de lahum jannatul ma'wa mooy ajjana joo xam ni lu sa xel daj ci lu taaru te rafet ma nga ca ajjana ja gis nga mbokk yi su fekkee da nga jàng alquran ba yeewu lépp luñ la warati ci kaw suuf lu taaru dootul mën a yóbbooti saw fit parce que àjjanaay tax gis nga matériel yi àddina yii buñ indi woon matériel buy wax ni doomu aadama comme yow du la mën a jaaxal parce que alquran jaaxal na la ba noppi moo tax alquran ci moom nit ki bu koy def tadabbur di ko seetantal maanaam leneen du ko mën a yéem lu dul alquran déedéet parce que alquran mooy li féete kaw ci kéemtaan yi borom bi subhanahu wa taala mu ne gaa ñi nga xam ne gëm nañ yàlla wa amilu salihaati jëf-jëf yu baax lahum jannatul mawa am nañ ajana yi xéewlu ya nuzulan mu nekk wàccuwaay bi ma kaanu yaamaloon ci liñ doon jëf yàlla suñ borom defal na loolu wa ama alladina fasaqu gaa yi nga xam dañoo taay taay topp leen neex di sàgganee julli ñee di sàgganee seen colkay frontière yàlla yi moom sa yoon nekku ci bu la neex këdd bu la neex palate bañ xëy yeew la yët sa borom summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq ala lahu alxukm wa huwa asrau alxaasibin sunu borom mu ni ama alladina fasaqu ña ñëw foofa nag bi saf keroog ñu vérifié seen dossier fekk ay taay taay lañu woon fa mawaahum annaaru seen dëkkuwaay mooy kër sawara sunu borom mu ni kullama araadu saa bu ñu nammee an yaxruju minha ñu génn ci sawara sax uidu fiha dañ leen di delloo ca biir kenn ci magi salaf yi nee na waa sawara dañuy seen ay xéwal yu mel ni yuy nekk ci catu ajana ja ca catu sawara sax ñuy daw mel ni ku koy jëli nee na bu ñu dawee ba jàpp ne bu ñu yegsee foofu mooy génnukaay rek fekk am na ko fa tabax daal leen ba ma ñu duggaat duggaat ci biir lii borom bi wax na ko lu man ñetti yoon ci alquran mi ngi suratul xajj kullama aradu yaxruj mina min gammin uidu fiha ñu tàbbalaat leen ci biir safara melokaan wa nam mel loolu moom damay waxee dégg sax ëpp na ci ci nopp ku gëm yàlla moo tax la yàlla waxoon rek ñi nga xam ne ñoo ñu gëm yàlla moom la yaxzunuhum albazaau al akbar ñoom riir ma tiitaange ja tàngoor wa lakkaate ga ñoom fa sax fa ñuy jaara comme nekk bopp ñoom du leen tiital yàlla na suñu borom defal nu loolu loolu day ku ko am wa dalika huwa alfawzu alazim loolu mooy texe gu mag ci suñu borom mu ni wa qiila lahum ñu wax leen ni leen zuuqu mos leen adaban naari mbugalum sawara si alladi bi nga xam ne kuntum bihi tukaddibuuna moom ngeen doon weddi xam ngeen ni kii weddi mbugal mi tekkiwul mooy gëwma safara déedéet waaye ki topp ci mooy yàlla yi koy dugal safara di nekk kooke lisaanul xaalam la muy wax mooy ma ngay weddi safara borom bi mu ni wala nuziqannakum daañ leen mosal min al adaabil adna ci mbugal mi gën a doyadi fii ci kaw suuf duuna al adaabil akbar lu bokkut ak mbugal mu métti ma muy àllaaxira ñenn ci mufassiroon yi am nañu wax ne al azabul adna mooy tolof tolof yi lay dal ci kaw suuf xam ngeen dafa am ñaar yu bokk ndey ak bàyyi nuroo ñu di leen jaawale te bokkuñu mooy mbugal ak natt ci gëm yàlla te baax yàlla du ko mbugal da koy natt ki saay saay te bon yàlla du ko natt da koy mbugal te li wàcc ci kii ak li wàcc ci kee ñoom ñaar ñoo bokk nuroo leen wuutale mooy seeni jëf ñoom ñaar suñu borom ni daan leen mosal ci mbugal mu ndaw bi dangay gis koo xam ni alak dëgg nag la ko yàlla def subhanahu wa taala ndax ki gëmut yàlla moom lépp lu ko dal ci kaw suuf loola sens sensam la gis nga ku gëmut yàlla lépp lu mu am ci kaw suuf sens bu rëy rëy rëy rëy waaye gis nga ki nga xamante ni dafa gëm yàlla lu mu am ci suuf ci ay xéewal loola tuuti na benn yahud dafa mas a xool alxaafis ibnu xajar seen ko mi ngi war benn bax la berkell ndongo yi wër ko mu sol daraaju rëy rafet lool di jaabal aw fasam ndongo yi topp ko muy dem yahud bi daal di ñëw ba te ngalaabu alxaafis ibnu xajar mu ne ko dama am lu ma bëgg a laaj mu ne ko yéen yéen a wax ni seen yonent nee na ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir seen yonent nee na àjjana àddina mooy kasab jullit di àjjana yéefal mu ne ko waaw mu ne ko xool yow ni nga rafeteeg sa affaire yi yi nga war a xéewale àddina yi nga am ba pare nga ne ci kasa nga nekk xool ma ni ma doyadeeg ni ma salteeg ni ma ñàkkee nga ne man maa nekk ci àjjana xoolal borom xam-xam yi seen i dégg-dégg dama xóotee woon ibn xajar mu ne ko moo ne yaa ngi ci àjjana maa ngi ci maa ngi ci àjjana yaa ngi ci sawara def ñun maa ngi ci kaso yaa ngi ci àjjana mu ne ko yow ak melokaan wii nga mel yépp lan moo la nekkloo ci kaso mu ne ko su fekkee nar na ma dem ajana la may xaar ajana na mu neexee boo ko gam-gam léegi lii ma nekk c'est comme zéro kon kaso la ci man kon gaaw dee ma arrangé génn kaso bi mu ne ko aman nag nan laa nekkee ci ajana mu ne ko la lay xaar ci mbugalu yàlla boo tuubut na mu mettee soo ko gam-gam léegi lii ngay dund dina cig noos nga nekk teel a dee arrangé wu la yow gis nga xadis bi jàng naa ko ay at musuma foog ni déggin wu mel ni la ci yonent bi namm sallallahu alayhi wa sallam mooy ajana yéefar di kasaf jullit te tekki wér la ko ko tekki kon ku gëm yàlla ki lu mu am ci ay xéwal ci kaw suuf loolu xeebu na parce que la koy xaar moo ko gën a rëy waaye lu mu am ci natt muñ ko war naa yem parce que la koy xaar ci xéewal raafal na loolu gis nga ki gëmut suñu borom moom lu mu am ci ay xéewal loola du dara parce que mbugal maa koy raafal lu mu nekk ci ay musiba loola àddina la parce que bu yeggee fee xam ne fii neexoon suñu borom wala nudiqannakum daañ leen mosal min al adabi al adna ci mbugal mu dayane mooy mbugalum àddina bi am na ñu ne déere mooy mbugalum biir bàmmeel duna al adabi al akbar walis mbugal mu rëy ma laallahum yarjiuna amaana ñu dellu siwaat kon ñi ko firee mbugalum addina bi firin boobu moo gën a dëgër ndax laallahum yarjiuna ah mooy xarina bi ñuy wan ni firub addina addina moo ko gën a dëgër dañ leen mosal ci mbugalum addina bi ngir ñu mën a dellu si ndax am na xeeti mitital ak natt yoo xam ni bu dalee ku gëm yàlla wala bu dalee ab nit ci jëmi boppam su ca génnee mën naa tuub saa saa di ngeen dégg ku dem ba feebar sonn di waaj a dee lan lay wax di récc ni tuub naan su ma wéraatoon dinaa def lii kon yooyu dafay delloowaat nit ci yàlla moo tax may wax mbokk yi bokk na ci li gën a mën a waar doomu aadama mooy mu deele mbaa mu feebar mbaa mu feebarle mbaa nga fekk ci opi hôpital gis nga yu mel noonu pour nga waar nit ci mu dellu ci yàlla dafa yomb parce que jamono jooju xol bi dafay tooy te xol bu tooyee dugal ci njubug yàlla gi day yomb sunu borom mu ni wa man azlamu kan mooy ki ngeen xam mu dàq tooñ mimman ci waajoo xam ni dukkira lañ koo fàttali bi ayati rabbihi ci aaya sunu borom yi summa arada anha mu dummóoyu ko kan ngeen xam ci gën a mën a tooñ koo xam ne buñ ko jàngalee aaya yàlla yi da koy dummóoyu dummóoyu gii nag ay xeet yu bari la dummóoyu bañ koo déglu dummóoyu bañ koo jàng du mooy bañ koo jëfee ila axiri am na ñoo xamee tey mbokk yi déglu waxi keneen moo leen gënal déglu waxu yàlla ji alquran booy wax ak ñoom xam nga lañ lay wax bu ñu jaxaseeg yàlla gënoo ñoo bëgg a déglu alquran moo tax gis nga léeg-léeg nit ñi seen doyat yi mi ngi feeñee ci terme yi ñuy wax borom bi subhana taala mu ni inna ñun yàlla min al mujrimina muntaqimun aw muntaqimuna min al mujrimin ñun yàlla day dinañu mbugal ñi nga xam ne ñoom ñooy saay saay man humul mujrimuun alladina dukkiru bi ayati rabbihim fa aradu anha ku ñu fàttali aaya yàlla yi mu dumóoyu ko gis nga ki xamagut am na problème bu rëy waaye ki xam ba noppee ko ëpp problème parce que kooku moom bu jëfewul rek mbugal may gën a métti borom bi subhanahu wa taala mu ni inna ñun yàlla minal mujrimina ci saay saay soo nga xam dañuy du mooyu alquran ak di ko bañ a jëfe mooy taqimuna daañ leen bugal suñu borom wàcc loola mu ni wa laqad aatayna joxoon nañ ñun yàlla Muusa yent yàlla Muusa alkitaaba téere suñu borom mi ngi joxoon Muusa téere ba di tawraat tawraat rek mooy téere boo xam ni katabahu llahu bi xatt yadi jamiu alkutub almunazala min alsama tawraat rek mooy téere boo xam ne sunu borom moo ko bind ak loxol boppam loolu wér na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam tawraat yàlla moo ko bind ci loxol boppam jox ko Muusa téere la bu màgg bal sax nag mujj gi téere Isa mujjee ñëw ba tax ñu bari defe ne téere mujj day folli ba ko jiitu comme ni alxuraan folle yëpp déedéet Isa injil ñëwul pour folli tawraat waaye dafa ñëw pour mottali tawraat ndax loolu la Muusa doon wax wa li ubayina lakum baada alladi xurrima alaykum beneen bi ci des mooy tawraat ci boppam boo seetloo moom rek ngay gis yàlla di ko lëngaleeg alquran ci biir alquran ndax màgg gu mu màgg ak rëy gu mu rëy ndax Muusa kat ko amoon dayoo la ba yàlla subhanahu wa taala sunu borom ni falaa takun bul nekk fii miryatin ci sikk sàkk min liqaa'ihi ci dajeeg Muusa di nga dajeeg Muusa dajega nag ma nga amee woon ca al isra wal mi'raj ca mi'raj ga xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala dajale na yonent bi sallallahu ak mboolem yonent yi ba pare mu jiite leen julli te loolu lu wér la donte nag ahadisul isra wal mi'raj moom bari na ay coow ñi daayifal ñi dëgg la nag ay naxa sakkandak bari na ca lool waaye soo deloo ci sixaa yi sunan yi wala bu dee da ngaa mel nit ndongo comme ñun boo delloo ci téere bi Cheikh Nasir Taalib al isra wal mi'raj jax da ca andi lu wér da nga xam ne loolu wér na ni yonent bi daje na ak yonent yàlla yi jiite na leen loolu mooy tawar sax ñuy wax ni Isa ab saxaaba la xam am na ñuy wax loolu donte nag wax jooju nag wax la joo xam ni mat naa teey annabi saxaabi la saka Isa yonent la waaye bu dellu si waatee day am daraja soxba loolu nag am na ñu ko wax ci borom xam-xam yi lu tax ñu wax ko mooy dañ ni comme gis na yonent bi te ci dundam la ko gisee te gëm na ko te du nekkaat yonent ginnaawam kon am na daraja soxba waaye laa sax moom ab yonent la moom ndax saxaaba laa nekk wala du saxaaba nag moom am nay coow moo tax yenn ci borom xam-xam yi boo demee ci téere xaar saxaaba yi dañ ciy boole ay saa waaye loolu rek moo tax donte nag loolu moom jurut bëreen coow parce que njariñ lu bëri du ca topp borom bi subhanahu wa taala mu ni kon bul am sikk sàkka ci di nga dajeeg Muusa Muusa nag ku baax la ci ñun ku baax la ci ñun ban la joxee juróom fukki julli ya Muusa moo waxoon yonent bi dëppal demal nan ko waaj mu dem dikk mu ne ko dëppaatal mu dem dikk mu ne ko dëppaatal ba mu des juróomi julli mu ne ko dëppaatal Muusa xam na lool te arrangé ñu yonent bi ni ko kersa jàpp naa mënatumaa dellu mu ne ko même juróom yi gars yi danañ ko sàggane parce que xam naa leen xam naa leen mooy waa banu Israël ñoo gënoon a dëgër xeet bu mujj wi te ñoom gis nga nañ doon sàggane seeni jaamu yàlla sunu borom mu ni wa jaalnaahu def nañ téere bi yàlla wàcce ci Muusa hudan mu nekk njub li bani Israil a ñeel banu Israil téere boobu yàlla daf ko def mu nekk njub muy tawraat yàlla wàcce ko ci banu Israil waaye mu nekk njub ñeel leen comme ni alxuraan nekkee njub ñeel sunu borom ni wa jaalna minhum def nañ ci ñoom a'immatan ay njiit yahduuna ñuy ginde bi amrinaa ci suñu ndigal suñu yoon yi lamma sabaru ba ñu muñee wa kaanu ñu nekkoon bi ayatina ci suñuy aay yuuqiloon di way gëm maanaam mbooloo mooma àndoon ak yonent yàlla Muusa sunu borom ni jël nañ ci ay nit def leen ay tànneef waaye balaa ma leen koo def lamma sabaru dañoo muñ moo tax al allaamatu ibnu alqayim saaxibu alkutubi alqayima day wax ni darajatul imaama balaa kaa kenn yayoo ci diine da ngaa nekk muñkat mu tekkaloo aaya ji wa jaalna minhum aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru gis nga jiite njiit njiit ak lu mu mën a doon nag même bu ngeen doon fal njiit ci seen kalaas bi ku mu ku dul muñkat yayowul ñu fal ko ku bëriwul yërmande yayowul ñu fal ko parce que dafa am ay critères yu ñuy tànnee njiit muñ ak yërmande moom xaw ma yu mën a ñàkk waaye yi moom benn mënu cee ñàkk te benn duñ ko ci négocier la gis nga yàlla ci boppam njiit la buur la ku ko man la ku ko mat la waaye bokk na ci yi tax mu mat ko man ko mooy dafa yërëm ñi mu jiite gis nga yërmande nit ki bu ko amee ci ñi mu jiite day wëlbati ko këppwaat ci kawam parce que ñi mu jiite dañ koy bëgg gis nga ñi gëm yàlla li tax ñoom ashaddu xubban lillah parce que dañoo xam ni amul ku leen yërëm yërmande ji doy na ji leen seen borom mi leen yilif yërëm kon arrahma wa sabr ñaari ngàddaay loo xam njiit mënu koo ñàkk loolu dañ ko déggee ci aaya ji aimma yahduuna bi amrina lamma sabaru beneen bi ci des mooy bépp daa yi booy gis muy daawa bariwul yërmande daawaam du mën a réussir waxuma du am njariñ de du réussir maanaam fa mu waroon a yegg du fa mën a yegg waaye bépp daa yi boo gis mu jaar ci ay natt yu métti mu muñ natt ya ba jàll ko kooka rafetal njort ci moom te di ko ñaanal te xam ni sabaat dina ko am insha allah waaye koo xam ni gisala doo ko benn natt defal ndànk parce que jamonoy natt mooy jamonoy tame mooy jamonoy feeg bu kaay gis nga muñ lu am solo la mbokk kenn ku ne ci ñun dafa bëgg nekk jaamab yàlla tigi bëgg nga yàlla bëgg la wala bëggoo yàlla bëgg la tontu bi mooy bëgg naa yàlla bëgg la te yàlla moom ku mu bëgg da lay mosal ay natt may yuridillahu bi xayran yusib minhu ku yàlla bëgg faw mosal ko ay natt bëgg nga yàlla bëgg la nga ni waaw est-ce que yàlla mas na laa natt natt bu tax ñuy wax natt amaana déedéet ngay wax est-ce que yow sa ngëm gi sax valable na baax na sax naka la nit di nekkee ku gëm yàlla te yàlla nattu ko benn natt gis nga sunu mbooloo mii ak mëca biti ak ña feneen yàlla na yàlla boole ñu sàmm waaye gis nga natt saa bu yegg ci woon bu mbooloo bi dee téeméeri juróom fukk roccee maa la wax nii li may wax nii du ay natt de du ay calcul li may wax ka xaqil yaqin aw aynil yaqin li may wax dafa mel ni dama jàkkaarloo moom comme ni ma jàkkaarloo ki yéen ndax natt mbokk yi dafa metti tellement metti waay boo xam ni léegi da nga toll koo xam ne da ngay jaay sa ngor jaay sa diine ndax natt bu metti ba xam ngeen iblis bu ñëwee danañ la tipp ci kanam nga bëri bëri arrière waaye daanu woo bu dëkkee ginnaaw ni ne ter ci ginnaaw nga tërëb di waaj a daanu waaye daanu woo mu bis sa loxol ndey joor daanu woo mu bis sa càmmoñ daanu woo kon xanaa jàmbaar nga de moom du saa yi day leen jonkon koy toog dina xam parce que xam na ni bu amul ci quatre côté yi rek faw mu am fu mu am moom day jonkon fee toog dina xaar moom du taay yi moom moom lu mu am jël xam nga li gars yi naa ma ne lu ma am jël iblis moom lu mu am jël boo fakkataloo baax na boo dammoo baax na boo rëqee baax na lu l'essentiel na am dara rek xam ngeen jonkanam boobu lu muy xaar bisab jaaxle bisab sonn bisab mer bisab jaxasoo bisab kontaan boobu gis nga juróom yii benn bu la ci dikkal rek fax ma ubbeeku na day dugg bari waa na koo gis mu jaay ngoram jaay diineem te li muy def bi mu koy def moo ko tey xam nañ li muy def baaxul waaye jamono jooju jaaxle dikkal na ko te jaaxle bu dikkee force bi day ubbeeku seytaane dugg ci la gonfle nit mën naa dem ba lépp riba ci banque mu wir ko ni yonent yàlla bi nee na juróom ñaar fukki xaaji riba yeeg ñaar ba ca gën a tuuti mooy nit ci ànd ak yaayam njaal yow nga yëg loolu pare nga dem defi ko lu tax nga def ko parce que jaaxle dikkal na la seytaane dikkaale dugg ànd ak moom waaye am na koo xam ni day gore ba xëy dee day muñ ba xëy dee di yaakaar yàlla ba xëy dee am na ñoo xam ne dañuy am ci ay métit ak ay jafe ak ay natt loo xam ni wallahu bihi alim yow lan mooy sa natt lan mooy sa natt lan lan rek nga mën a lim amaana li ngay lim sax mooy da nga am problème ak sa papa mu génn la kër gi loolu du natt ah du nattu ndax yow bu ñu génne ci kër gi amaat na fan lay fat mooy dàq sax fa nga jógee loolu du nattu kiñ génne këram mu am natt mooy saxaaba ya ña nga xam ne bañ leen génnee seen kër uxriju min diyaarihim wa amwalihim ñu am moyen ak possibilité man fee toog ñu nangu génn gi génn teeg bakkan wér na leen ni fan jëm buñ fanaanee àll jaral na leen ko lu tax yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana kay am na koo xam ne yàlla da koo nattoo nattoo nattu ba mu ama na waa ji problème mu bëñ buy metti rek la am bu koy dikkal saa saa am na koo xam ni crise la yore boo xam ni bu dikkee day tàqali ak sagoom kookaa la gën a métti de am na koo xam ni mi ngi xeeti métit boo xam ni yàlla rek xam fu mu yegg te mu ngi koy muñ bu tax gis nga léeg-léeg wax jàmbat yi rëy laa mañ rek la waaye léeg-léeg nga jàmbat fekk ci ngay jàmbat moom mi ngi yor lu double li ngay def yow li nga yore kon muñ mbokk yi faw rek aji gëm yàlla ji boole ko ci programme yaa abdallah yow jaamam yàlla bi tey jii tey jii natt bi nga jàpp ni yow bu yegg ci woon dana métti lool ci yow am na koo xam ne feebar la parce que nit ñi tolloowuñ am na koo xam ne natt bii bu dikkee ci moom lay métti waaye bu dikkee ci keneen du métti xalaatal lan nga jàpp ni métti na lool waa ji génn na fii rek di jaar ci tali bi oto fel ko moxoñ a tànk bi ñu dagg ko léegi amoon na ñaari tànk léegi ay beeke lay dox ku ne xam ne loolu métti na nattu la waaw tey bu la yàlla nattoo woon natt boobee keroog ban nit day doon maa doo boole tànk bu rëq bu yàqu ak saalis bu yóbbaale tey tiyaaba balaa mel muñ naa moo tax gis nga muñ muñ day ci manaabil yi nga xam ne war nañ cee yaraat suñu bopp nga bokk muñ moom defuñu ñaari baat ñett joxoon njaay nga ne damay génn suñu kër damay lii damay nangam déedéet bu dee ci côté góor ñi da ngay gis ñu yore ay soxna dara mënuñu ko muñal soxna yi loo wax nga bëgg a tukkal addina bi loolu la yoree soxna benn yoon jël ko ngay takk soxna parce que biñ la koy jox pour nga muñoon moo tax ku jigéen ñaari baat ñett mu ni lii mënuma cee way bu dee balaa caa garaay ma dem sama kër baay loo doon sëy sëy sëy bu fekkee xamoon ngay doo mën a muñ koy jëru ngay ñëw te lii may nekk li nag mooy liy nekk ci biir société bi ñuy dindi au contraire que am na koo xam ni ma ngay dund ci ay métti ci ay jafeñ-jafeñ koo xam ni mën naa toog ñaari at dàll yem sol du ko changé waaye mi ngi muñ xiif di ñëw muy muñ mar di ñëw muy muñ natt di ñëw muy muñ parce que bëgg na ajana innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi xayri hisab suñu borom mu ni inna rabbaka sa borom yàlla huwa moom de yafsulu baynahum moo leen di atte yawma alqiyamati ci yawma alqiyama fi ma kaanu fi yaxtalifun ci yi nga xam dañ ci doon wuute kii moo nekk ci dëgg kii newul ci dëgg tariqa bi wér bee wér bii nangam yooyu jëru coow xam nga lan la jaamul yàlla rek yàlla moom kenn du ko wax lu muy àttee jaam gis nga coow yëpp jëru ko kii nekk ci dëgg kii nekkul ci dëgg wér di wii ku ci jàppul doo texe salaatu bii ku ko jëlul doo dugg àjjana yooyu yëpp jëru ko xam nga fi mu nekk nii yàlla ci boppam dàquñu dàquñu koo rek ba di ko calcul fii gis nga calcul bii ñuy def dafay poussé parce que chiffre yi am àllaaxira amul ci suñu machine àddina yi kon buñ ko jéem a calcul xam nga lan moo la war góorgóorlu nga jaamu sa borom yow inna rabbaka yafsulu baynakum yàlla mooy atte atte teqale alaxira te wallahi fii buñ fa yeggee xam nga wolof yi dañ naan yuuxu dina jibee fuñ ko foogeewul dama naan man ay yuuxu yu bari dina jibee fuñ ko dul foogee parce que nit dana foog ni kat fii la nga dem ba alaxira nekk du foofa feela fi muy doon mooy fa yonent bi jaaroon ak ay saxaaba sunu borom ni awalam yahdi lahum xanaa ñoom de duñu gindeeku xanaa gindiwu leen ni xanaa waaru leen lahum ñeel leen kam ahlak naa ñaata lañ alagoon min qablihim ci ñu leen jiitoon min alquruni ci ay siècle ci ay maas yoo xam ne ñoom kat faat nañ waaye yéen yem suuna ñi ngi dox yéen fii masaakin ci seen dëkkuwaay yi tey boo demoon ci dëkk yi nga xam ne dañ naan la ay buur ñoo fa nekkoon ay buur fii nag ay xama laj joor ak ay kam xam di wax ay buur ña cay jullit ña ca dul jullit ñëpp laa boole la tey boo ci demoon ña ca nekk ay yéefar dem naa ci dëkk am góor gu mag di ma nekk li mu ne ma gis nga tund wii ñuy wër nguur ak diw sàngam ba mu fi nekkee saw bëy mësta ñemee taxawaalu fii ndax bëy bu fi dugg wala xar buur jël lekk te boo jaaree foofu yow ñu boole la tëj même boo rombee ñu xam ne ba yooyu ngay tey sax ñu jël la tëj ndax dugg na kër buur buur lekk na ma ne damaa bëgg a dem ca armée ya fan ko suul ñu wan ma fa ma dem fa allahu akbar gis nga boo demee man ci sama jëm bopp moom ñi ma woon a yëkkat sama tànk teg maanaam suuf si dafa mokkate mokkate koo xam ni boo tegee sa tànk boo këddee suuf si day pëtëx ànd ak yow fin ko suul gis ngeen mbaam yaa yëpp a ngay fërti fërti ca pegg ba sama xel dem ci aaya ji ak ji ni mel wa sakantum fi masakin alladina zalamu anfusakum wa tabayyana lakum kayfa faalna bihim wa darabna lakum al amsal ana nguur ga ah fa tilka masakinukum lam tuskam min baadihim illa qalil dëkkuwaay yoo xam ni wér na ni fii ñi fi dëkkoon ñu jekk woon àddina lañ yàlla alag leen faagaagal leen def leen xabaru kaana maata leen andi ñeneen ah suñu borom mu ni naka ngeen di moyee yàlla te fekk yéen a ngi dëkk ci dëkkuwaay bi nga xam ne ña fi dëkkoon dañ doon mooy suñu borom moo tax yéen yàlla ba muy romb tabu fa yàlla mugalee woon nit yéen yàlla saalix wala nit yi huud yi boobu kenn ci ñaari xeet yooyu dañu saxaaba yi ku romb na nga romb ngay jooy di toroxlul yàlla ku mënta romb di jooy bul fi jaar teggil ndax mbir mi dafa yërëmtalu xoolal fii nga dëkk ñaata nit nga xamoon ñooy dugg dund loolu ñu jekku àddina lool keroog bi leen gan gi ñuy tuddee dee ganetee lan lañ am ma agna anhum jamauhum wa ma kaanu yaksibuun ma agna anhum maaluhum wala awlaaduhum amul lu jëriñ kon lii fi am lépp mbokk yi poñat la moo xam ne dañ ko fiy bàyyi gis nga àddina li fi di poñat kum teree jaamu suñu borom dëgg-dëgg xamoo àddina waaye xamoo tamit àllaaxira sunu borom mu ne yamsuuna yéen a ngi dox fii masaakin seen dëkkuwaay yi inna fi dalika nekk na ci lii day la ayatin ak aaya ay waaru afala yasmauna xanaa du ngeen déglu aaya yii ngeen settantal ko ngir man cee jariñ awalam yaraw xanaa da ngeen deful seetlu ni dañoo deful seetlu ni annaa ñun yàlla nasuuqul maa ñooy jiital ndox ila al ardi al juruzi ci suuf soo xam ni ab ndànd foy foy la dara amul moo xam ndoxam dex gi la moo xam ndoxam taw bi la moo xam ndoxam ndox bu mu mën a doon mu mën a bay suñu borom ni ñun yàlla ñoo koy formé defar ko niir defar ko xiin jekki jekkal ko ba mu baax jiital ko jëme ko ca ilal ardil jurub te suuf sa nga xamante ni foofu moo aajowoo taw suñu borom di fa nuxriju bihi ñu daal di cay génne zaraan ay gàncax yoo xam ni taakulu minhu da cay lekk anaamuhum seen jur yi wa anfusuhum ak yéen ak seen bopp suñu borom mu ni afala yubsurun xanaa du ngeen xool ndax mbirum nawet kat xool la laaj yaakaar naa bu ngeen génnee gis àll bi ni mu naatee ñax yi ni mu mel nga xam ne tey bu fekkoon ne nguur moo bëggoon a jël roote àll bi pour mu taw wallaay danañ xam ni nguur du buur ki ne ci nguur du buur waaye kii buur kenn la mu yàlla subhanahu wa taala suñu borom ne inna fi dalika nekk na ci lii day ci wàcc ak taw ah la ayat ma suñu borom subhanahu wa taala mu ni taakulu minhu an'amuhum seen jur yi ci lekk wa anfusuhum seen bakkan yi mu ngi ciy lekk ndax fruits yi ñuy lekk yëpp mi ngi bàyyi ko suuf si afala yubsiruuna xanaa duñu seetlu duñu gis sunu borom ni wa yaquluuna nit ñi de ñu ngi wax naan mata hada al fatxu lin nuy dig naan yàlla dina indi mbugal meeg dinañu alag ak yooyu daal dafa yéex yàlla li muy def na ko def tey xam nga doomu aadama yàlla da ko nattoo bëgg lu teew ak xam lu teew gis nga nit su fekkee dañ koy dig dara gis nga boo gisee taswir seytaan yàlla yàlla rëbb ko milliards yoon par seconde gis nga kooku bokk na ci technique am yu bon yi mooy al aajila la lay gën a bëggloo ci al aajila kalla bal tuhibbuna al aajila wa tadharuna al axira affaire yoo xam dafa sori ay alaxira ay fay ay ajjana ay yooyu dafa yeex waaye naa ko dóor léegi mu gaaw daanu léegi ma am samay ni may dem ma dem sama yoon yàkkamti googu dafa nekk ci bi yéefar ba tax muy ñaan yàlla na yàlla wàcc mbugal nekk na yàlla taw ay xeer sunu kaw ak ne yàlla fàtti ma fàtti naag maa taay bi rek tu mën a sadiqin indi li nga ñuy digal bu dee wax nga dëgg sunu borom ni ñu ngi naan mata haadal fat fat gii nag ñenn ci nit ñi di ko firee fat màkka loolu njuumte gu mag la sax ndax li toptal ci aay bi qarina gi ne ci ginnaaw aay bi moo ko njëkk a weddi sunu borom ni ñu ngi naan mata haadal fat kañ la bisub ubbee gi kañ la yàlla ubbi mbir yi indi mbugal mi ngi mi ngeen ñuy dig in kuntum sadiqin bu dee li ngeen di wax dëgg la sunu borom ni qul sont leen ni yawmal fathi bisub ubbee gi bisub wàcc mbugal gi la yanfau alladina kafaru di jëriñ ñi gëm yàlla imaanuhum seen gëm nga aaya jii moo lay wane tekkiwul fath maak bul soxla jër bu wëri leneen ndax la yanfau alladina kafaru imaanuhum mooy ku gëmati sa ngëm du la jëriñ est ce que fath maak ña gëmoon seen gëm jëriñu leen ahankay kon aaya ji wet na waaye yowmul fath bii la muy tekki mooy bis bi mbugal di wàcc wala bis bi àllaaxira yegg sunu borom ni qul neel yowmal fath bisab wàccab mbugal laa yanfau alladina kafaru ñi gëm yàlla du leen jëriñ imaanuhum seen ngëm nga wala hum yunzaruuna te kenn du leen néggandiku mbokk yi bisab wàccab mbugal ak bisab àllaaxira ak bisab dee ñoo bokk ndey ak baay kenn du la muñal kenn du la xaar ngallaawaay li jaadu mooy nit ki tàmbali góor-góorlu gis nga bokk na ci alquran li muy jëriñ aji gëm yàlla mooy su déggee aay yoo xam ne man nga ca kanam te daal laa jëfee damay séq ay jéego daw dem pour jëfe ji gis nga poñatum àddina bi yépp fi leen koy bàyyi jumtukaay yi matériel alal yi fi leen koy bàyyi diplôme yi diplôme bi gën a rëy bu jullit war a wut mooy diplôme boo xam ne cachet ba ca nekk mooy radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla kontaan na ci yow mbokk yi saxaaba yi amuñu benn diplôme la certificat wala BFM wala bac wala dara dara dara te ñoo gën ñeneen ñu dugg yow beneen bi ci des mooy gis nga yooyu may yittewoo ba tax may mooy yàlla wala may yittewoo ba tax may tàggan ci samay jaamu yàlla amul benn sens ay diplôme bu tax nit ci am xam-xam déedéet. wallahi fii ay nit a ngi fi yoo xam ne amuñu dara ci ay diplôme te yàlla defal leen ci tawfiq ak ragal yàlla jub ak jàng ak xam ak jëfe loo xam ne ñeneen ñu dul ñoom amuñu kon mbir mi xam nga lan la mooy delloo sa bopp ci yàlla balaa ñu lay delloo ci yàlla yii nag boo koy wax nit ki seetaan ah deewa goo dafa goo lii parce que day tasfiif loo waaye ki muus mooy ki nga xam ni moom day nekk ci dunya ka ka garib aw abiri sabil mën ngaa dee tey mën ngaa dee suba sunu borom mu ne bisab keroog laa yanfau alladina kafaru imaanum seen gëm du leen jëriñ wala hum yunzaruna kenn du leen xaar kenn du leen déggandiku kon nag fa aarida anhum du mooyu leen comme woo nga nit ñi ci kaay leen ci njub woo leen ci kaay leen ci baax woo leen ci kaay leen ci defar ñu nekk ci leen neex fa aarida anhum du mooyu leen nga bàyyi leen wantazir te nga néggandiku te xam ne yëpp yaa ngi yegg si innahum muntazaruun ñoom kat ñi ngi leen di néggandiku te mbiram suñu borom dana yegg si nu ngi ñaan yàlla bi asmaani wa sama sifaatihil ula yàlla suñu borom def ci ñun dégg ak topp aay yi mujj li muy dëxañu dëxañu yàlla yàlla def ci ñun ñu mën koo jariñoo alquran nekk suñu lool yi xol yàlla na yàlla boole ñu ci kuréel bi nga xam ni alquran ci boppam dafay naatal di nëtëxal seeni xol yàlla na yàlla def ñu mën a jëriñoo alquran comme na ko salafu saalih doon jëriñoo hada wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulillah ñu defal yàlla subhanahu wa taala ñu ñaanal suñu ustaas yàlla subhanahu wa taala barke xam-xam daal di yokk ñun ñi nga xamante ni ñoo sëriñ yàlla may ñu ay fan yoo xamante ni saa bu déggee wax dañuy tànn ba nga xamante ni moom dina am dina koy def kon ñu def ñoo dëgg ba nga xamante ni sax fàtte nañu ko bu def kenn ku nekk ñun ngaa di góorgóorlu ba ñu fàtte lu mu ñëw demee dem comme benn benn sax mu nekk benn jikko nga jël benn ko jikko boo defee li mën a wax ci loolu ci ñu mën a jëlee yeneen yi nga xamante ni moom moo tax a yor jikko comme dafa xaw a gudd comme ça fi mu nit ñi ko def ñu jëlal ko ci question yi ñu ko xamal ma alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت incha allah.